abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér aju si réew ak ci bitim réew. ismi Cheikh Ibrahima Niass tilmi fi maadi tafid al-Qur'an al-Karim li Cheikh ibn Cheikh al-Islam Alhaji Ibrahima Niass xadmat al-Qur'an al-Karim bi raka asnaga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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه waa وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci turu njabootu Seyda Mariam ñu ngi wax njabootam mooy do njabootu deretam ak taalibeem ñi nga xam ne tey Mermoz euh, fas nañ yéene fii ubbi nañ depuis démb ñetti fan yi nga xam ne moom lañ koy jagleel at bu jot muy le vingt 23 24 décembre di ko fàttaliku ñu fàttali ne mu ngi génn le 26 àddina le 26 décembre 2020 donc at bu jot ñu di ko fàttaliku di ko jàngal ay kaamil di ko ñaadal di ñaanal yàlla réew bi léegi nag ñun daalu xuraan euh, dafa nekk loo xam ne liggéeyu Cheikh Amar Yam la boo gisee ñu def journée yi pour fàttali nit ñi liggéeyam pour ñu gën a yokk seen pas-pas ci yóbbu seen doom yi ci daara yi ak jàngal leen alxuraan bu defee loolu mooy li tax a jóg journée yi après ñu ñaan nag ñaan yàlla nangu lii mu def ko yiw boo xam ne bii daf koy yeggalee ci Cheikh Habar yam euh, ba pare nekk loo xam ne lii dafay ñaan ñaan boo xam ne dañuy ñaan ci barke alxuraan ak ci barke kaamil yi fi naan def fan yi yàlla wàcce jàmm ci Sénégal ni mu ko mos di wàccee ba nga xam ne lépp lu ñu ragal rek duñ ko gis ñu ngi jëm ci ay jongante yoo xam ne yi euh, xamaguñ nu mu nar a mel yàlla na yàlla def rek mu mel nii fi passé yëpp nga xam ne jàmm mujj. alors ñu nit ñi tànn ki nga xam ne moo leen doy ñu xëyee ñëpp jub liggéey loolu la ñu ñaan yàlla eh, ñu ñaan nag ñëpp nag teewlu ne eh, ñu dellu ci yàlla daal ba nga xam ne bi eh, affaire par parloo ak topp àddina wala bëgg dara ji du poussé kenn ba mu def loo xam ne lii dafa indi loraange ci réew mi parce que loraange bu xasee ba ñëw wala fitna bu xasee ba ñëw li ko indi du ko dindi gis nañ li xew ci dëkk yi ñuy wër yëpp Mali Burkina Niger alhamdulilah loolu mosu fi dara mosu fi am parce que waa Sénégal dañoo fonk l'islam dañoo fonk alxuraan dañoo fonk nit yàlla yi. yëpp leen ñaan aussi da eh, leen daal lii ñun ñoo ñoo ko bokk ñu ñaan mu nekk lu am dafay dolleeku seen liggéey gën leen yombalal li nga xam ne moom lañ jiitee ak li ñuy def pour sàmm jàmm ci réew mi ak sàmm fi diine ñu leen di gërëm yéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى